waay waaye Alioune Fall la tudd man dama tukki woon bi ma ñëwee laa dégg ni dafa dem euh, Augustin Tine ak euh, Abdou Mbow recevoir que au délice lu fa xew xaw ma ko wax nañu tuumaal nañ ko daal tuuma googu nag ñun moom la ñuy setal suñu der ndax dafa génn wax ni bés yu ñàkk wéy lay voté te bés yu ñàkk non la ñuy voté non la ñuy voté parce que képp ko gis sorti suñu leader sëñ Mansour Sy Djamil ci 2STV di nga xam ni non bi ñuy wax noonu non boobu dafa dafa nekk non bu bu dëggu non boo xamee ni bi dafa am contenu loolu moo tax ma ma demandé man pour que ñun ñu setal suñu der également rectifier le tir pour que militants yi ak sympathisants yëpp dégg ma ni région de euh, département Thiès non la ñuy voté kon yàlla nangu suñu cant gi ñu koy sant ba ñu amee suñu ay partenaires yu mel nii Ablaye Fall Mao bokk APDR am taxawaay lool ak euh, camarade bi di sama gauche di Mara Diop wax dëgg yàlla ñu ñu kontaan trop ci seen seen teewaay ci soutien bi ñuy soutenir également ci wax googu ñuy wax noo li tax ñuy wax noo nag balaa nga ma koy laaj xam naa di nga ci ñëw mais dama ko bëgg anticiper li tax ñuy wax noo moo di euh, dafa am loo xamee ni ñun moom lañ ñuy yare moom la suñu diine santaane mooy nit su waxee dara loolu mu wax buy doo bu doon dee itam bu mu ca deñ ñun ci loolu loolu lañ xam donc li nga mooy suñu premier grief mooy président de la république mooy moo moo waxoon ni dana wàññi mandaam del jékki-jékki mu delluwaat gannaaw ci loolu raison yi mu joxe ci pour mu mën mu wàññi mandat bi ay raison la yoo xamee ni ñun jàpp ñu ni valable na parce que la consultation du conseil l'avis du conseil constitutionnel ak yooyu kooku subterfuge la quoi ay subterfuge politique la yoo xamee ni nii ça passe pas avec nous quoi parce que ñun euh, nous nous nous voyons autrement donc lii nga xamee ni lii moo ci topp moo di ni gisuñu gisuñu woon nécessité référendum bi parce que Voilà un, un, un, référendum qui plonge le pays dans un, dans un, dans une, boo xamee ni bi kenn mënuloo wax kan lañ ci génn paralysé secteur d'activité yi secteur économique bi paralysé euh, et cetera xaalis bi di dem xaalis bi ñu ngi koy distribuer loo xam xaalis bi fu mu jógee xaalis boobu nag ñun yàlla defal nañu mucc nañ ci parce que ñun wax naa ni amuñu njëg amuñu njëg parce que buñ doon am njëg dañuy jaay li nga xamee ni lii mooy suñu marchandise suñu marchandise mooy li ñu yàlla jox ci ci ci xam-xam te mu tuuti lool waaye mu bari njëkk te mooy alxuraan ak ay ay lasraar yoo xamee ni yii yàlla def na xam nañ ko te jaayuñu ko kon